ba léegi ñu ngi fi tey si Jolof Info Double Moteur maa ngi lay siyaare Double Moteur tamit di doomu Rebeuss di xale bi nga xamante ne jamono ji muy def làmb ay jéego yu bëree bëree xam nga tey Double Moteur daan nga fëgg la bu rëy amatul benn werante di la wax siyaareel gars yi nga bëggee gars yi tamit wax gars yi yow yaay kan. waaw bisimilah bisimilah jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba gàcce nga laa ma maam Thierno Mbacke Sané waaw di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa àdduna xam nga di nuyu ñu fi teew ñëpp tamit di leen bëggee di leen siyaar bu baax a baax. ñu ne kele bi nga daane ñoom Feugeleu ban kele la. waaw Feugeleu man ak moom dañoo bëre. Mm. Feugeleu dama ko dañoo dañoo bëre daw jàppante man ak moom. Mm. biñ dawee jàppante man ak moom ma sol ko dañ ko dëbb ko naax muy mboor ma daka mooy ma yokk ko wër ko ndomb waaw. mais ñu ngi ci biir ci biir bëre parce que yaa ngi jël ay coups di encaisser ay coups pour jàpp ko. parce que ku yëg mooy toujours rek mooy li wax gars yi lam moom toujours rek boo demee ba ci géew bi tamit li conseil bëri bëri li dal sa xel la ngay def xam nga tamit dem nañ ba ci biir lii laa nañ làmb ji xam nañ tamit benn sant tamit fëgale moom pour nga daan ko tam lekk kuwam pour jàpp ko daan ko. Euh. moo waral tamit mu demee noonu quoi waaw. ñu gis ci yaa ngi recherché pour jàpp am na bal boo xam ne yaa ngi ko doon boo balee loxo bi nañ ko jàpp def dinañ ko def Mm-hmm. sa relation ak yaa mbëru Medina yi lan la. waaw relation bi du lenn lu jaam ak salaam rek seqalul naaj rek parce que Medina Rebeuss benn la ñu lu rafet nekk ñun xam nga mooy lool noonu ba pare ñenn ñi ñu bokkoon écrit muy Fass ku ci mel ni ay Serigne Ndiaye 2 ak Forza ñoo bokkoon écrit nekk Fass xam nga seq relation yi rafet wax dëgg yàlla. loolu moo waral te jii mu demee nii combat yi ngay gis moo koy pare yëpp ñoo koy pare ndoo ñoo tam ku ñu am combat tamit man damay dem jàpp waaw. loolu mooy relation bi rek ak ñoom aada Fass gaa yëpp. waaw maam gaa yi ñoo doon chargé affaire yooyu noonu di la jox tamit fëgal. yooyu yëpp ñoo si ñëw di si jàpp ak yooyu yëpp. Mm-hmm. ba nga bëree fëgal amul lenn loo sóoraale si moom. non fëgal la déedéet aw ma dara lu ma doon sóoraale ci moom. waaw wax naa ko sax si kii bi nee naa fëgal moom amuñu dara lu ñuy sóoraale ci moom. waaw. ñëw si diggante combat boo ñaala de guerre mooy lamb ji nga xam ne yi bëgg nañ ko jamono ji te bëri na coow mooy sa diggante combat fële rek xale mag la ba léegi rek. waaw combat boo Niang la de guerre moom li ma ciy wax moom ñaari camp rek laa koy wax. mooy ñu waxtaan si supporters yi ñu ñëw si jàmm. ñëw si non à la violence xam ne làmb la rek mosul weesu làmb foo la sport la te ndam li mënul génn Sénégal. waaw te loo mbaala boo xam te ne ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk dañ ngay coono yi la mooy ndam ku ci nekk mën ngaa am ndam Boy Niang mën na daan Lac de Guiers Lac de Guiers mën na daan Boy Niang ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk tey jii liggéey nga loo mën a may ndam mais ko te amaana yi wala dara xam nga day rey làmb a lu dul ci kaw rek gaa ci kaw parce que tey ama neex dafa war dafa war a ñëw ñu bëre Modou Anta ay Yékini Junior wala Reug Reug ñooñu tey jii dañu war a ñëw ñu bëre waaw parce que tamit ku daan fëgal tey jii jox na tamit benn sant ñooñu parce que la may la loxo waaw làmb moo ñu boole ñu war a bëre xam nga nekkuma fi tamit dëgg di xaar wala dara suñu bañ a bëre man tamit man moom wax dëgg yàlla moom damay dem xooli leneen rek waaw noonu la demee. tey daan fëgal xam nga fu mu la yóbbu ci làmb. waaw daan Feugeuleu moom xam nañ fu mu ñu mën a yóbbu parce que Feugeuleu champion la mbër mu mag la tey ku ko daan rek kenn waratu la bañ si làmb kon tey jii nii jot na tamit gars yi si kaw benn instant tamit may ñu loxo ñu bëre loola rek. waaw warul nga naagu benn instant ak affaire yooyu noonu. non ñun ay Baay Faal lañ ñun ay lañ du ñu naagu ñun dara mënul rëy si ñun ñun ay taalibe Serigne Touba lañ dara rëyul si ñun. moo tax xama rek lii nii la mënoon demee ndam la ndam mënul weesu ndam. waaw ndam mënul weesu ndam ndam lu mu rëy rëy rëy ndam la Sorage yaa ko yow waa Rëbës tey booy bëri Rëbës ñëpp bàyyi si njiite ñëw ne du supporté si du mos a duy stade bi nag ba mu fees dell. waa mooy li ma la wax rek ku ci nekk tey jii nii mooy relation boobu mooy du leen lu jox gars yi rek waaw mag ñi nga jox leen li ñu moom ndaw ñi nga jox leen li ñu moom loolu mooy secret bi du leneen waaw respecté gars rek seq ñoom jàmm ak salaam seq ak ñoom naaj parce que tey jii nii man samay supporters man ak ñoom mën naa ne majeure partie bi laal la ku nekk mën naa jaar sa tur man ak ñoom ñooy nekk chaque jour ay affaire de lambooloo dara ay famille lañu. waaw famille lañu quoi ñooy nekk chaque jour wax dëgg yàlla. waaw loolu rek moo waral tamit xam nga da ciy profité waale dem di masawu coono dëkkandoo yi bu baax a baax parce que bu ñu amee combat dëkkandoo yi dañuy sonn xam nga dañuy nekk ci fitna pression bi xam nga coow lii mooy loolu noonu kon dañ leen di masawu coono di leen jégalu bu baax a baax baax a baax a baax waaw. ñan ngay woo wooteel gars yi ñu jàpp ci làmb ji tamit. waaw li may njëkk a woo mooy ku ci mel ni tey sama sëriñ maam Thierno Mbacke imam mu ngi ba États-Unis maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm diwaan bi yëpp maa ngi di sant bu baax di leen gërëm maam Thierno Mbacke imaam ak njaboot Cheikh Modou Kara yëpp maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant sëñ Sidi Mbacke alxuraan borom jàmm gën maa ngi koy sant bu baax sëñ Sidi Mbacke alxuraan borom jàmm gën jàpp na si combat bu baax a baax a baax ak ñoom Fallou Dialibatu porte parole bi maa ngi koy bu baax xam nga ñoom suñu xaadim gaa yëpp waa kër gi daal maa ngi sant ñëpp ñoom sonn nañ ci combat bi gaa yi nga xam te ñoo ci sonn ku ci mel ni suñu papa Diop si ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm waaw ku ci mel ni Ilimane Gueye taaliba Serigne Saliou ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm Mortala Gueye taaliba Serigne Saliou Mame Gor Samba Abdou Gor bool bool yi bàyyiñ kenn sama mag Mour Diagne maa ngi koy sand bu baax a baax di ko gërëm sonn na ci combat bi trop trop trop trop trop di sant Ablaye joob Diop dollar di ko sand bu baax jàpp na ci combat ak laat mi ngi ba Somone ak waa Somone yëpp maa leen di sand bu baax di sant tamit waa Tivaouane Peulh sama supporters yi nekk foofu. ñoom Tivaouane Peulh waaw maa sama gars bu fa nekk Oudjou Ousmane wax dëgg yàlla Ousmane dama koy sand bu baax Tivaouane Peulh la nekk dañuy jàpp bu baax a baax a baax. su fekkee sànq mooy maanaam CNG dañuy gis ne toujours dañuy dagg mbëri ay xaalis yu bëree bëri te ñu xoolee làmb dafa bëri ñuy feebar tey lu si mel ne ancien gloire yi dañuy feebar parce que ay per booy bambara dafa feebar. fi mu ne ba temps passé la ko li waa doon ket benn ket ba am doole pour ñu yóbbu ko pour mu faju tey noonu noonu yéen mbir yi loolu waaw loolu moom wax dëgg yàlla moom waaw loolu dëgg la moom sax di ko ko sant bu baax a baax di xam ni loolu mu defal père Boy Bambara moom wax dëgg yàlla acte bu rafet la ñëpp a ngi ko ñaanal di ko rafetlu bu baax. waaw mooy li nga wax rek CNG moom xam nga CNG moom maanaam moom moom mooy suñu guvernement ñun mbër yi xam lépp lu ñu naqari tamit fa lañ koy jooytoo waaw parce que tamit ñoom ñun bu ñu nekku si yoon ñoom ñoo ñuy teg si yoon xam nga kon tey ni ñoom ñooy sunu gouvernement ba tax na daal benn instant côté xaalis bi ñu dagg ak yooyu nag moom hmm. yooyu moom ñun moom mooy loolu lañ ci sant yàlla rek ba nga xam ne xam nga hmm. ñun li ñuy dagg amaan amaana bariwul kon amuñu daal luñ ci wax affaire da xaalis ñuy dagg fu muy dugg muy dugg tamit yooyu man damay mal placé pour wax ci damay tuuti pour wax ci mais daal ñun bëgg nañ tamit gars yi ancien gloire leen gestu ginnaaw di leen jàppale bu baax a baax a baax di leen bàyyi xel parce que loolu am na solo trop waaw parce que tamit kenn ñaanu ko yàlla dem ba xam nekk ci laam dem ba toll yenn aaj damay problème gars di la ketal ak yooyu noonu mhm. loolu moom kenn ñaanu ko yàlla mais Papa Boy Bambara moom dañ koy ñaanal yàlla rek mu fëgg boppam a dëgg yàlla ba mu delluwaat say activité waaw delluwaat say njabootam loolu la ñu koy ñaanal yàlla parce papa papa baax la mooy loolu moom borom baax la dañ koy ñaanal rek waaw yàlla yëkkati boppam incha allah rabi. te ay match yi des yàlla mooy ñu si ndam kon bi la rek Sénégal tey xam nga ñun lañ. Mm. te ndam li ñu am dafa rëy quart de finale lañ dóor war a dem demi finale. loolu moom wax dëgg yàlla dañ koy savourer. combat ndam lu rëy la moom mooy kontaan continuer bi ma waxoon rek. waaw ba tey mooy continuer dañuy ñaan yàlla dem ñaari match yi des yàlla defal ñu si ndam. Mm. waaw ñoo ngi leen bi nag parce soxla nañ ko trop waaw. lapin yi nga indi si lamb ji xam nga si mystique bi bari trop si biir waa yooyu mooy li rek xam ñun moom ay ndaw lañ rek wax dëgg yàlla xam nga dañuy ndaw lañ nekk si làmb mooy loolu te làmb ji moom suñ moo laaj loolu boo nekkee si làmb tam doo bàyyi jox rek mooy loolu noonu xam nga waaw moo loolu ngeen gis gars yi la rek ñooy dugg di dem di andi di ñu jox naan ñu defal lii defal lii defal lii mais ñun moom loolu duñ si dara gars yi ñooy andi rek te làmb ji moom dafa war a neex tamit xam nga làmb moom bu ñu nee culture moom culture dafa war a feeñ xam nga mais ñëw rek toog sa coin ne nemm gaan xam nga loolu taxul ñu naan culture quoi waaw yan yi si bëri nag dañuy feeñal culture rek xam nga xorom moom ku ne xam na ne pour jaamu la fa mooy loolu xam yooyu yëpp loolu la rek mais du dara waaw li daan bëri wala dara moom entraînement lay doon liggéey xam nga mooy loolu mais yeneen yëpp da lay mootali nii rek culture la xam nga mu rafet mooy loolu harmoniser mu rafet loolu la rek. nga jàpp ne yaa juróom noonu fëgal la fi ma indi ko social bu tar ma mun non làmb ji boo xoolee yooyu feeñu fa sax ay social yooyu feeñu fa sax non musique feeñu fa fee bëre moo fa am ak xeex ah musique am musique du duré. waaw fee te combat boo xoolee xam na duré ay 7 minutes yooyu waaw ah, xeex bëre moo fa am. waaw moo tax foofu lenn moo fay am lu euh, entraînement kese moo fay feeñ. waaw ah, entraînement bu feeñ moo ñu moo ñu may ndam. waaw. waaw liggéey ah, lañ fi loo xamante ni moom xam nañ ne wax dëgg yàlla moom mooy loolu noonu. dëgg waaw ku dul fëgal sax war nañ la mën a daan waaw. jaajëf maa lay jaajëf ama di sant gars yi nga xam ne tamit ñoom ñoo nekkoon fii nii mooy waa Lamana Basara waa 2h. booy nga xam ne 2h ñu ngi saat mafia bi moom deux semaines avant combat bi chaque jour fi la fanaan ku ñu xamul loo fi dugg xam nga ñu ngi leen di sant bu baax mooy sama booy ñoo ñëw ma seen fay dama leen di sant bu baax di sant tamit waa groupe WhatsApp bi waa 100 pour cent double waa double sans frontière xam nga waa mafia double bi xam nga waa double moo ñu boole di sant groupe WhatsApp bi yëpp supporter képp ku ci nekk ñi nga xamante ne tey jii nii ñi nekkuñu ñu Sénégal ñi nekk ñu Dakar ba pare di di ñaan xam nga di yëkkati seen xew di ko ci def ñu ngi leen di sant bu baax baax di leen gërëm ku ci mel ne Aliou Niang Aliou Niang mu ngi ba Italie maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm. ak représentation de ses combats. ak Cheikh Sall la. kii moom sama fils moom moom mooy loolu noonu moom xam na ma xam quoi moo tax mooy loolu noonu dañ koy ñaanal yàlla wér rek ak gudd fan. ndax xam ni lépp lu waay lekk si làmb mën na ko lekk parce que booy bu yaram may na ko loolu. booy bu kula booy bu yaram booy a sonn ci nit la. moo waral tey bësam tamit gars yi di ci sonn xam nga di sant tamit gars yi doo nga sant bu baax fan fu Serigne Graf jàpp na si combat bi ndax baas yi ngay gisee saal moo ko defar ak t yi xam ñoom dañ ci sonn bu baax ku mel ni ay Cheikh ñoom ñoo doon togg ñoo nekk si waañu di togg chaque combat heure bu ma amee combat ay hôtesse la ñuy defar ñoom dama leen di bu baax di leen gërëm parce tamit waaw